Heavy Mess.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 xanaa lii nag mooy kuy takk jabar parloo mujj di fase parloo waa ji nag li mu def rëy na ndax ñetti jabar aaw awo ñaareel ñetteel la boole fasendoo ëpp mu ngi wuyoo ci turu beelum ñetti jabar yi yi njaay di awo buuru këram f jon di ñaareel xaritu jëkkëram ak ambeng di ñetteel neex jëkkëram sa waay ñoom ñépp la boole fasendoo ëpp ta law mbir lu ko indi nee ñu ñetti jabaram yooyu jàppante bu metti moo doxoon ci seen diggante ba ci ne jële ci ay blessé Basiir yu garaaw. awoon naa leen wëññeenteel ak ñeenteel ku ca jarul ñaaw bokk lii moo tax aawoo rek lépp mu ngi dooree ci jàppante bi doxoon ci diggante doomu ñetteel bi góor bi ak doomu aawo bu góor bi ñoom ñaar ñu daal xeexoo jàppante jàppante bu metti ba gaañante bi loolu amee nag aawo gisee doom gi ak gaañu gaañu yi ci la demee songu ñetteel bi soir dal koy sabañ baat yu métti ñetteel bi tamit saf sap wexat dal di répliquer ñoom ñaar ci la songo xeex ma lii moo tax aaw rek jàppante boobu nag aaw bi dal di dominer bi mal ko mal yu métti ci la ñetteel bi dal di nopp aaw bi matt ko dal ko koy gaañ gaañ bu métti ay way ñaareel bi bi mu gisee loolu dal di daw dugg ci seen diggante ngir àtte leen aawa bi dal yootu loxom ñaareel bi matt ko matt bu métti dal koy gaañ ay way li moo tax ma ne leen aawa point final bi coow li takkar naa seena ci la dëkkandoo yi dal di dugg si dal di leen wàllu ngir àtte leen seen borom kër nag nee ñu buuse bërëbu liggéeyukaayam lañ ko téléphoné dal di koy yëgal li xew mu dal di ci kër gi bu mu ñëwee ñëw fekk ñetti jabar yi coow li ci koñ bi mu dal di leen ndoo baat ñoom ñépp fase leen ay waay déet déet déet gaawtu baaxul ma ne jëkkër ji nit ñi ñaan ko ba sonn waaye mu mel ni tëx bu amuli nopp fi mu taxaw la taxaw de du ci dellu ginnaaw <laughs> waaye ma ko déet gaawtu baaxul coow nag maanaam mattante yi nit ñi ñu ngi ci doon dem bay tudd ya fi dem comme Sénégal nag moom ñeme nañu yàlla ñeme yàlla goo xam ne lu ñu fekkee am fuñ ko féetalee fu mu ne ñetti jabar yi ku ci nekk ut nga sa certificat médical ngir dem déposer plainte ma ne wujjan ak jarul ñaaw ndax wërsëg la waaye bokk jëkkër jëkkër joo xam ne nangu ngeen ko bokkee fenn waaye doo leen laale ci biir kër kër gi diviser kër gi séparer xale yi séparer bagage yi kenn du laal sa jël kër gi dal di ko def ni Israël ak waaye ma lii moo tax aaw kot moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax ba léegi maa ngi ci biir kër yi de ma ba léegi maa ngi ci diggante wujje yi ndax wujje yi ma ngay bëgg a tas réew mi kii tamit beneen kaala bu xewee ca Linguère ca kër naan oo sekk ci guddi samedi fukki fan jëm dimanche fukki fan ak benn boori 22 moom tamit aaw ak ñaare fa doon jàppante jàppante bu metti ay waay ay waay la jël ngeen nit ñi bi loolu amee ab soxna bu ñaan acam dal di ñëw ngir àtte leen soxna si ci àtte bi mu doon àtte xeex boobu ci la piqué crise dal di daanu ci saa mu ñàkk bakkanam ay waay ma ne leen fitna baaxul kenn du ko yee après constat bu commissariat police bu Linguère na néew soxna si yóbbu nañ ko ci hôpital Magatte Lô bu Linguère moo tax maa ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graw corona la wax la xew ca Pikine romb na doy waar ab waay buy wuyoo ci ustaas moo doon tifli tifli di dal di tabbi laal ab waay du ñaan César César dal di jël ab yaat dóor ko ustaas ci bopp bi ba bopp bi xaar ñaari fan la oustaz def hôpital dal di ñàkk bakkanam man ne leen gis ngeen réew mii réew mii dafa mel ni dafa am lu ko dugg ay détail ay tuuflit waaye wax dëgg yàlla man li moo tax man leen aaw rek jigéen ñii ku leen topp doo gudd fan mu doon doonoon seen xibaaru buzz dig daje beneen yoon ci yeneen xibaaru buzz